amati mbégte bu baax dalal leen ci leeral TV leeral point net euh, waaye tamit leeral FM ngir ñu waxtaanee li nga xam moom moo jëm ci wàllum actualité bien sûr wax ci li nga xam ne moom moo jëm tey jile ci euh, maanaam li ñuy waxee inflation jamono ji ci biir réew bu Sénégal gis nañu ne euh, lu jëm ci wàllum dund bi cher na lu waaye bi cher na naka noonu tamit. ci lu jëm ci wàllum courant bi ndox bi ak li ni mel lépp daal dina nekk loo xamante ne askanu Sénégal ñu ngi cay daal di dund lu bëri tax nag tey jii ñu dalal kenn koo xamante ne dafay daal di yëngu ci boobu lépp mbir Alassane Seydina Alassane Laye Sow moom mooy njiitalu Euh, kon euh, forum de jeune consommateurs moom la ñuy daal di dalal liggéey ji léegi ngir waxtaanee loolu yëpp maa ngi lay nuyu di la dalal salaamaaleykum. waaleykum wasalaam Seydi Lamine Senghor ñu ngi lay nuyu di la dalal. macha allah douze minutes chrono. fukki ah. minutes ak ñaar ñu waxtaanee li nga xam moom moo jëm euh, ci boobu la mbir xam naa ne course contre la montre lay doon mais c'est toujours important ngir ñu justement ñu daal di tënk li nga xam moom moo jëm ci li ni mel waxtaanee li nga xam moom moo jëm ci jamono ji c'est la vie chère bien sûr concrètement lan di def peut-être. Euh, ngir euh, li nga xam moom moo jëm ci wàllum dund bu cher bi sànq maa ngi koy wax courant bi ndox bi lépp cher na waaye tamit les denrées de première nécessité lan ngeen di def pour justement mën a barrer la route justement à cette inflation face au gouvernement du Sénégal. waaw xam nga dañ toll si jamono joo xamante ne waxatuñ ne dund gi eh, dafa cher wala benn secteur rek moo am problème mais lu ñuy wax hausse généralisée la si secteur yëpp te loolu état du Sénégal si boppam moo am pour protéger le pouvoir d'achat du consommateur. quelque que quel que soit niveau bu bu mënta nekk naam sa dañ déclaré Séné dañ déclaré si régime libéralisé lañ nekk mais tout le temps état du Sénégal moo am le monopole de déterminer le les prix de ce fait que depuis ñun ñun ñun suñu association depuis 2019 lañ seetlu ne prix yi fañ ko bloqué woon muy am ay changement à l'époque ñu bind directement président de la République lettre di di ko si ay yooni yoon sax ak secteurs yi mu concerné yëpp di leen wax ñu defaraat seen toogaay ñu bàyyiwaat xel ñu gën a surveiller marché bi ndaxte affaire yi mi ngi commencé euh, doy waar par rapport crise yi ñëw konara yooyu yëpp ñëw état nag mu leen jéem a def ay effort pour accompagner ko mais li problème bi mooy suivi bi pour mën a appliquer li nga xam ne état moo ngi koy def pour mën a protéger consommateur bi. d' euh, samedi bi ñu weesu da ngeen woon def benn sitting. ngir naqaru li ni mel waaye tamit yëkkati seen i kaddu finalement euh, defal defoo leen sitting parce que tout simplement euh, c'est vrai que accordé nañu ko woon mais tardivement alors euh, sitting boobu defuñu ko vous avez fait choisi de faire en en lieu et place benn conférence de presse en tout cas point de presse pour parler mais est-ce que dëggantaan li di wax jàpp ngeen ne ngi leen di dégg en tout cas autorité ñu ngi leen di dégg waaw autorité yi ñu ngi jëfee ni ñu war a jëfee rek. et pourquoi jusque là amaguñu benn solution bu ñu teg ci table bi. non parce que solution mën na am parce que bu ñu ñuy dégloo am na ay propositions yu bëri yu leen ñuy jox si secteur bu ne bu problème amee ñun dañ ne ñun problème amul solution moo am bu ñu dégloo ñun lu ñuy wax si si problème yi la plupart bu ñu ko appliqué dañ ciy gis njëriñ pour pour ñëpp. alors ci solution bi ngay wax ñu jël courant bi par exemple. jamono ji facture yi yokku na fal bi mu mujjee naa doon diisal alors ban solution ngeen proposé foofu pour euh, état bi bu ko jëlee peut-être dina soulager euh, en tout cas euh, métit bi nga xamante askan wi ñu ngi koy dund. xam nga problème mu courant courant courant Sénégal état du Sénégal ci boppam moo koy surveiller boppam mais erreur bi si am mooy que système de facturation bi ñuy facturer courant bi si Sénégal loolu mooy problème loolu la ñu war a changer fal bi bi muy dooru juddu. nekkoon tegoon na si yoon ndaxte benn ta benn tranche moo fa amoon ak benn unique tarification. Hmm. après lañ ko dindi man biñ ko dindee si lañ commencé am seetlu yi problème kii di ñëw ñu si lañ commencé di bind di alerte mais dégluwuñu même le mot diesel bi ñu di jox boo fekk ni ñu bi ñu koy wax yàgg na yàgg na sa fait trois ans ñu ngi alerte les autorités suñ suñu réunion yi ñuy dajeek waa Sénélec waa commission de régulation di leen ko wax ne leen ne leen waaye bi. parce que tey ngeen jël pour woyofal bi ne dafa mujjee doon diisal. waaw parce que li ko taxoon a judd xam nga historique fale bi dafa am fu mu jógee. Hmm. mooy que euh, dafa am ay jamono ay deux mille deux mille huit bi doon organiser am na consommateur yi organiser woon fii li ñuy wax les émeutes de la boobu état du Sénégal à travers Sénégal dañ bëggoon a yokk courant bi à dix dix pour cent ñu ne ñu ne leen fii doon ko fi yokkee parce que te joxu leen nit ñi courant bu doy bay yokk. balaa nga daan naam da fay danga fay ne ñu bañoon loolu après si lañ def benn réflexion mu amoon benn comité boo xamante boobu euh, Karim Wade moo nekkoon ministre bi mu mettoon en place benn commité de restitution euh, pour euh, pour la relance des activités de du secteur de l' énergie. Hmm. si lañ gisee si lañ tuddee woon plan tàkkal ñu ñu ne nag léegi ne premier tranche bi dafa nekk 150 kilowattheures te dañu seetlu à partir de 30 jours jëm kaw rek gars yi dañ a génn. ñu ne léegi pour bañ nit ñi teel génn foofu nañu indi loolu xam ne dafay permettre pour que ñu bañ génn foofu après système boobu ñun ñoom ñu ngi ko jëlee Afrique du Sud lañ ko jëlee la la mais prépayé nag bu ñuy wax dëgg yàlla dafa war am avantage warul ute ki nga xam ne compteur classique nga xamante ne da koy lebal deux mois. Hmm. may ko délai vingt et jours pour mu fay ki nga xam ne moom dafay jënd ba pare pour mun a consommer mun na am courant mun na bañ a am courant ñun si loolu nag ñu waxoon ne nee leen. prépay bi ñun ba léegi fañ nekkoon nañ ko delloo fa mu nekkoon mooy benn tranche benn tarification ba pare mu nekk illimité loo jënd boo jë boo bu la neexee mën nga dugal si un million si pré si pré si contre prépay bi utiliser ko ba saa yu yu mu la neexee. te hmm. benn facturation rek lay. benn lay nekk. loolu solution la ñu ne ñu ne leen tamit euh, si contre classique yi trans premier tranche bi. nañ ko def euh, cinq cent kilowattheures pour mun a protéger. mooy tranche sociale bi. y' a pas de tranche sociale. pourtant pourtant waa Sénégal rek nee nañu am na. tranche sociale amul amul fenn fu ñu définir ne amul fenn fu ñu ko fu ñu waxee lii mooy tranche sociale amul tranche sociale amul ñoom ñoo bëgg a indi tranche sociale. pour naxee kon jàpp ne ay naxaate la. tranche sociale naxaate la bu ñuy wax tranche sociale ñoom Sénégal ñoom ñoo nekk ci tranche sociale. ñoom agents Sénégal. ñoom les agents de la Sénégal ñoom ñoo nekk tranche sociale. parce que ñoom ñooy bénéficier bénéficier wu 1250 kilowattheures pour seeni avantage loolu mënuñ ko bañ qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel mais il faut manger modérément moo tax bu nit ñi di wax problème mu courant ni muy méttee si ñoom ñoom duñ ko mën a comprendre. waaw ah, seen rek dinañ la duñ ko mën c'est la triste réalité ñoom ñoo nekk ci tranche sociale mais amul kenn ku ne tranche boo xamante ni ñëpp koy bénéficier wu kon jàppal tranche sociale yow mi am doole di fay 1 million. yaa ngi ci premier tranche bi da nga koy bénéficié wu ki nga xam na euh, mun du du du utiliser si lu ma des fois cinquante kilowattheures wala cent wala cent cinquante kilowattheures ñu bokk ko tuddee tranche sociale tranche sociale amul. kon da nga jàpp ne hausse hausse bi ñu nemmeeku ci euh, lu jëm ci facture bi Senelec am nañu ci part de responsable wala ñoom ñooy le principal responsable ci li moom moo jëm ci li ni xam nga Senelec ñun ñun dañ ne Senelec euh, waxuma am na si part responsabilité. Hmm. mais mais moom. def si am facteur de responsabilité. mais xam nga Sénélec moom mooy fixer prix wu électricité bi concrètement. mais Sénélec fixé wul prix wu électricité mais commission de régulation mooy balaa technique gu état bi. moom mooy fixé prix bi si kaw si trésorier bu ko Sénélec di proposer parce que problème bi si Sénélec la parce que ay charge am ni muy toll ak ay prévisions. ak ay investissement yooyu yëpp. techniquement moom la ñuy calculer. de ce fait de que. ñoom de ce fait que commission bi buy buy fixer prix bi si foofu la koy basé wu moo tax ñu waxoon ne Senelec dañ ko war a réformer def ko en filière pour séparer leen pour que comptabilité yeeg yooyu trésorier yi gars yi mun ko gën a sende pour mu gën a leer pour mu gën a trans pour mu gën a transparence hmm. mais ñoom seen i charge yi ñuy jël ak seen i projection ak ak kii Euh, pour def investissement. daf siy jouer si prix bi. d' accord euh, pourtant Abdou Karim Fofana nee na euh, lu tax affaire bi yokku nee na Sénégal dañoo jógee ci demande maanaam ci lu jëm ci mégawatt 770 dem ci 1046 est ce que loolu tamit mënul nekk facteur ci lu justifier peut être yokkute facture yi. ça énergie accès accès hmm. à l' obligation la te Sénégal bi nekk da ko war a da ko war a jot que sa que que ce soit ngay génne sa poste. donc da ngay dàq wala ñu lay génneel ñu sa poste même même bu waxee loolu. Hmm. teewul Sénégal mu ngi génne courant di ko jaay bitim di di ko jaay bitim réew. balaa ngaa naan non balaa balaa ngaa laax di jaay da laax lekk ba pare. d'accord parce parce que dama ne système de facturation bi ñuy def. moo baaxul moom la ñu war a dindi. alors bu ñu génnee ci seen rek euh, c'est vrai que ndox bi naka noonu tamit cher na euh, les denrées de première nécessité cher na tout euh, dañ leen bàyyi. justement à leur à leur simple comme euh, maanaam dañ leen bàyyi di leen di seetaan que ne liggéeyoo leen seen liggéey. defoo leen alerté leen euh, justement xeexoo leen pour ñu mën a euh, maanaam régulariser justement prix yooyu. non ñu ngi xeex guddi ak bëccëg que ce soit consommateur bi gis ko mu ñàkk mu ñàkk ko gis parce que li ñuy def ñun ñu ngi def parce que ñun kenn fayuñu de. Hmm. on fait un travail de bénévolat kenn fayuñu dañ ciy jaamu yàlla comme ñëpp. ñun nag dañu am consommateur dañu am consommateur boo xam ne un sénégalais boo xamante ne balaa moo appuyer dara rek mu dal ci kawam ni mu mën a dal ci ko solo il faut mbajum kanam nag borom moo koy fajal boppam ñu dañu am ñu suñu mission amuñu pouvoir de décision bien sûr ñun pouvoir de veille direct lañ lañ am. mais aussi de pression. de de pression ñu ngi def amul façon pression. buñ ci pression boobu est-ce que mën nañu xaaral ni ngeen def manifestation fan ñu bi da ngeen ko euh, demee woon la parce que buñ la buñ la ko bañalee toog ba dernière minute mooy que yow ñu ngi am stratégie de pour foirer foirer li nga war a def la. Hmm. mais am nañ ay perspectives yeneen yoo xamante ne incha allah dinañ ko def pour sénégalais yi gën a xam sénégalais yi ñu gën a yeewu que ne ñoom. seen problème pouvoir d'achat ñoom ñoo ko war a gën a jëlal seen bopp en charge gannaaw bu ñu leen joxee alerte ak yenn yenn information yi. d' accord d' accord Seydina Alassane Laye Sow am na solo bu baax a baax. gis nga en douze minutes fukki euh, fukki minutes ak ñaari dafay dem. très rapidement mais je pense qu'on a dit l' essentiel. ci lu ci euh, li nga xam moom moo jëm votre dernier mot. voilà fu may tëjee rek mooy. Euh, commission de régulation bi nga xamante ne moom moo war a régulier moom la fi état bi teg. Mm. doole bi ñu ko war a dooleel dëgg dëgg dëgg pour mu mën a def pression ci si si Senelec pour mu mën a def liggéey bi si war en terme de personnel en terme de de moyens pour mu def parce que commission de régulation bi à part Dakar fii foo dem doo ko fa gis. Mm. tey yii ñun proposé nañ sa dans les essences de Senelec mu am bureau du régulateur. d'accord nga xamante ne consommateur bi lu ñu ko fa def mun na turne léegi wax ko wax régulateur. Mm. parce que puissance bu mel ni Senelec. boo ko dénkee kenn da ngay jox kooku doole bu mu ko mën a surveiller bu mu ko mën a jub jubantoo mais tel n'est pas le cas. Hmm. ñuy wax état du Sénégal les les de manière générale secteur yu bëri. pour jeexal waaw. waaw secteur yu bëri. Hmm. am na ay autorités de régulation mais seen liggéey feeñul. parce que et joxuñu leen doole bi si bi si war pour que ñu mën a réguler yenn secteur yi ñu ay ay ay Sénélec ak ay. SEN'EAU SENES ak euh, comme ARTP yooyu yëpp dañ leen état dañ leen war a gën a jox doole bu baax a baax baax pour que ñu mën a protéger consommateur macha allah ñu ngi koy sant bu baax te di ko gërëm Seydina Issa Laye Seydina Alassane Laye Sow moom mi nga xam ne ma fàttaliwaat moom mooy njiitalu euh, forum des jeunes consommateurs ci biir réew bu Sénégal amoon mbégte bu baax daal di waxtaan ci li ni mel ak jafe-jafe yi nga xamante ne askan wi ñu ngi koy dund 12 minutes